seen seen MKTV daf koy def euh, weer wu nekk mu di ko amal ñaari yoon muy émission bi ñuy tuddee gàggantiku gàggantiku nag day tegtaloo ci ay laaj ak ay tontu ñuy dem ci ay boroomi xam-xam di leen laaj ay laaj yi diine yoo xam ne danañu mën a jariñ ci suñu mbiri àddina ak suñu mbiri àllaaxira ndax kenn ku nekk xam na ni euh, sunu borom tënk na jullit bi ngir mu jaar ci yoon woo xam ne mooy yéwénal ak dundam di yéwénal ëllëgam euh, xam ngeen ne bunt yi jàll yëpp ñi ngi gàggantikoo ci laab ba léegi ci la ñu des ndax mm, niñ koy waxee rek laab dafa doon mbir moo xam ne dañ koo war a settantal euh, gëstu ko xam ko bu baax ndax mooy tàmbali bépp jaamu yàlla bu yéwénul rek la cay topp du yéwén tey jii nag ñu war ñëw di gàggantikoo ci beneen bunt beneen mbir boo xam ne euh, jigéen ñi lay gën a yitteel waaye yitteel na góor ñi bu baaxit nag sax ndax ñoom ñaar rek ñoo ko seq muy euh, li ñuy wax al aydu wan nifaas maanaam wolof yi di ko wax mbërëg walla gis baax ak li ñuy wax euh, dàmmu nifaas mooy nit ki su amee doom deret ji nga xam ne moom lay gis ginnaawam loolu lépp nag danañu gàggantikoo tey ci xam lan mooy mbaax dëgg-dëgg lan mooy mbërëg ak lan mooy nifaas ak it lan mooy ab àtteem ci ci lislaam tax na kon ñu ñëw fii ci Daaru Salaam ndaam euh, fekk fi sunu mbokk mi sunu kilifa gi di sëriñ Mbakke Abdourahman euh, ngir mu indil ñu ay tegtal wala ay ay ay ay gàgganti ci bind boobu nga xam ne moom lañ koy laaj kon sëriñ wi ñu ngi lay nuyu te di la dalal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 Euh, bunt yi nga xam ne rawatina ñëpp la war a soxal ñëpp la war a soxal moo tax kon tey ñu fa yéene dugg ci bunt boobu noonu ko waxee ci buntu laab lañ nekk jamono yëpp laab na bokk na ca euh, li ñuy tuddee xayd ak nifaas muy euh, mbërëk noonu nga ko waxee ak meret yoo xam ne sunu mbokk jigéen faral di gaar waaye am atte yu bari ci aju ci lislaam kon nit ñi war koo xam ndax mën a xam fu ñu teg seen tànk bu ñëwee mhm. bis bi mu amee doom sax mën na cee nekk mën naa nekk mën na nekk moo yëpp naa bàyyi xel euh, su ko defee moom moom moom moom mu am nag atte yoo xam ne war nañ ko waxtaane am na ñoo xam ne dañuy gaaw naan loo xam ne tax mu jeex ak ñoo xam ne dañuy gis mbërëg koor gi ñëw wala am daal lu tax ñu ne nañ naan doom yoo xam ne duñ gis baax loolu fu xay wax nañ duñ ko tere bu ci lor nekkut waaye bu kër docteur saxalee ne lii kat baaxut ci wér gu yaram loolu làmmiñ ba dañ koy seetlu ne jigéen ju ko def mën na caa jële baax bu baax bu ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk tegu tënku ñàkk normal am na ñoo bu ñu aj màkk lañ koy def gis nañ mën nañu aj màkk dem ba ci biir baax feeñu leen te baax mën a tawaab tax ñu ne nañ arrêté seen kii ba mën a kii am ñoo xam ne bu ramadan dikkee lañ koy def ngir wane ne dañoo bëgg war ndoog nit ñi di fay bañ ci fekk waaye nañ xam ne yàlla leen nattoo loolu ab jaam daa war a bëgg ci dogalub yàlla yàlla bind noonu bàyyi seen bopp ni ko yàlla bind moo gën saa bu ñëwee ñëw nga xam ne ñëw na yàlla mi la santoon woor moo la ne bàyyi bu jeexee moo wax nga fay bàyyi xel loolu su ko defee nag eh, yi nga xam ne mbërëg ak meret dañ koy tere kum na ci yow yooyu moo tax bàyyi xel ba ci njëkk mooy day tax laab du mën a wér jigéen bu amee ni nifaas wala mu am mbërëg jërul muy sangu jërul muy def genn laab bu jàppee jàpp baaxul sobees na ci soo xam ne nii fii ak seetut mënta la ñoom ñaar ñëpp ci am loolu ci loolu dañ leen di tere julli julli dëgganu ci ñoom julli yëpp nag la farata naafila ba ci sujjóotu alxuraan xeetu julli la buñ ko defoon ni du wér maanaam dëgganul te buñ ko defoon du baax ñoom nag santuñ leen ñu fay julli boori julli yàlla ci yërmandeem jigéen ñi gis baax bu setee waxtu yu set daal bu fi sangu xajee ab rakka xaj fa waxtoo war na ko julli waaye nag bu setee waaye ba muy diggante bi muy sangu laata muy sangu waxtu wi jeex na wàcc na ko bu dee sàggante nag nga xam ne setoon na bu yàgg moo sàggan nag boo da koy fay waaye bu fekkee dafa set ci waxtu woo xam ne benn minute moo tee waxtu wi jeex sangu xaju fi waxto raw na ko du ko fay kon waxtu ja des lay julli loolu it jàpp naa ne baax naa xam nuñ ko teree julli noonu lañ ko teree woor woor daganul ci moom su wooree du wér waaye nag da koy fay moom yoo xam ne ki ko digaloon na dog bu ramadan dikkee moo ko wax ne ko bu jàllee na ko fay bu doon woor wooru nga ba ba ba baax bi dab ko it wala nifaas dab ko it daa dog amatu sañ-sañ di wéy di woor boo wooree amul njëriñ te it du ko jëriñ dara du tey bu dee koor bu ñu war a da koy fayaat ñaar yooyu ku ko am doo doo tawaaf kaaba ga doo tawaaf doo tawaaf nag tekkiwul ne doo aji nit ñi dañ ci jiw am na ñoo xam ne sama gis mbokk mu wax ndeysaan yi ñu dugg màkk la wax ne moom armalut ndax dafa setut jógee senegal dem ba Madina daf fay fan war a ñëw aj si ndeysaan kenn terewu ko armal bu setut day armal bu ñëwee lépp lay def ba mu des ka la du dem bu te waxta arab mën naa taxaw arafa mën naa dem Mina léegi nag bu setee nag dem dem tawaaf kon na ko yeexee ba ba set téele waaye du tee mu armal yi ñu war def ak yëpp mën na koy def lu ca dul tawaaf. bu noppee mu fay tawaaf bu noppee mu fay waaye na xam ne dàquñ ko waaw. waaw loolu it buñ ko ma xamee noonu bu baax kon duñ wër kaaba gi jamono yooyu waaye nag du tee nag li ci des ci aj mën nañ ko def. mën naa def Safa ak Marwa dafa dafa ndax waaw tawaaf moo tax. ndax sawaabu marwa tawaaf gu wér lay àndal day jokkaloo yéen dañ ciy sart moo tax xëy na bu fekkoon daa tawaaf ba noppi rek far gis baax kooku moom mën naa wéy mën naa continuer def sawaabu marwa waaw bu doon loolu moom nga xam ne tawaaf bi àll àgg na ba noppi far rek mu dab ko ndax euh, dox sawaabu marwa dañ caa sopp laab waaye nekku ci sart nekku ci sart mën naa wéy moom da dox sawaab maro ndax sawaab maro dañoo sopp nga laab boo koy def waaye du sart euh, bi ci des mooy du laal ab kaamil jigéen ju setul du laal ab kaamil budul ab sëñ daara ma dong ab daara ñaara ñu moom may nañ leen ko ndax ngànt la waaye duñ laal ab kaamil duñ ko laal nii duñ ko def ci lu mel nii nga yanu ko hmm. du ko def ak mbuus yan la kenn du ko def ci ab wëlis nga yor allahumma daan na ci wëlis boo xam ne ay bagage ci nag yow bagage nga moom téere topp toppale ay bu fekkee téere ba nga bëgg a yóbbu doo sañ a def ci wëlis bu yóbbu loolu it maintenant bàyyi xel kon ko surtout waaw soxna si jot soxna si sax bi soxna surtout ab kaamil nekk ci bu defee duñ ko dara duñ laal loolu it mat bàyyi xel sëñ daara bi ñuy waxee ne mooy jamono ci daara ji bu dee alxames ajum bokk ci yow yéen ci daara ji di jàng nga xam moom jógu togg loolu tax bàyyi xel waaye jamono yi nga xam ne moom moo jànglu ñooy am bu si bokkuñ ci buñ bëree bokkutu ci mooy sëñ daara jamono yi ne ci daara ji lañu may loolu dégg nga laal alxuraan lañ ko tere waaye terewuñ ko nag tari alxuraan man nit mën naa ñu ubbil kayam li mu tiim nii di jàng waaye bu mu laal mën nay tare ci di jàng am ci mokkalam waaw waaye laal ko lañ tere ki yore janaaba la ñuy tere moom mu tari alxuraan waaw xam nga ki tëg ko boppam te bu yeexee mën naa fàtte moo tax may nañ ko muy tari nit mën na ko ubbil téere bi bu tiim di jàng waaye bu mu ko laal waaw nga jigéen ju setut kenn du jaxasoo moom li tàmbalee ci jumbu xam ba ci bëti woo ci kanam ak ci ginnaaw borom këram wuru ca bànneex tàmbalee ci jumbu ba ci bëti woo li ci des nag terewul ko ay daal diggante boobu moom na ko sori bu soxnaam gisee baax ba bu gis ma rek feeg feeg giset ba sangu bu setoon te sanguwut it du ko sañ même bu setoon sanguwut julli jot amul ndox mu tiim tiim ba mën na caa julli waaye mënu caa jaxasoo allahumma mu nar a loru te loolu yëpp mu ci ji léegi ndox ndox manqué tu noonu beneen bi ci des mooy jigéen ju toll foofu kenn du ko fase dafa araam fase jigéen ju ne ci mbër mbaa mu ne ci meret xaram nit ki bu ko defee def na xaram te it bu dee fasem payli la dañ koy forcer mu fayli na aussi loolu de moom sew sew la bu mat a taxaw waaw dañ koy fase mu fayli na aussi bu fekkee fasem payli la waaye nag fase tàbbi na it nag bu ko defee fase mi tàbbi na bu fekkee fase woon na ko benn bi mooy ñaareel bu fekkee donte gis na baax waaw ci bii baax dafa dem lu araam ba noppi day tàbbi bu fekkee passé mu dog la moom jeex na bakkaar lay am waaye ñàkk na soxna masal tey fasoo na ko ñaari yoon jékki-jékki fase ko ci mbërëg mënu du ko fay waaye nag daf na am na bakkaar ci lim def waaye na fase mu wéy na waaye jigéen ji du tàmbale idda ci mbërëg moom faaw mu nekk ba set li tax ñuy tere fase ci jamono jooju day yeex day day day guddal mbër idda idda ndax day nekk ba set door tàmbali idda door tàmbali wàññi daal la bëgg a kon loolu du ma ta bàyyi xel la jigéen ju ne ci mérite noonu jigéen du am doom na nga wàcc ko ndax boo ko wàccee bu fekkee mérite bi setu bokk na ci dañ arab bu fekkee ne fasem payle lañ ko war a fayle moom boo ko fayle nag man nga ko téye man nga ko téye bu la neexee nga ko téye bu la boo ko fase wàccaat bu se bu setee ci mbërëg moomu ba laabaat ba ba ba mbërëgaat ba laabaat bu ko wàcc mu door ko wàcc waaw waaye ñaar ñu toll foofu deesu leen fase idda yi du tàmbalee ko buñ ko xasee fase deni ba ba ba set doroy daw loolu jàpp naa ne lu mat yi bàyyi xel la xanaa muy jigéen joo xam ne gisewu leen dañ la ko may mosu leen a gise kooku fase ko ci bërëg téré wuñ ko ndax idda waru ko wala mu ëmb bu xasee ëmb it xam nañ kañ la iddaam di jeex kon foofu bu mbërëgoon it nga fase ko ci bu mbër kenn tëréwu waaye jigéen ji nga xam ne ëmbut te jote geen lañuy bañ nga fase ko ci waxtu woo xam ne daa daa ci baax bànneexu ci jigéen ju gis baax hmm. moom maanaam maanaam monaay gi fan la fan la fan la. waaw jigéen ju gis baax moom jaxasoog moom dafa araam moom. bàkkaar bu rëy la bi ci des it nag dafa bari ay loru ci nekk maanaam ci wàllu wér gu sax baaxul borom bi da neen na ngeen leen ber ci waxtu woowu ndax lor la. fa'taziluhunna fil mahiid wala taqrabuhunna bu leen leen jege bu leen leen jege féeg laa buñ ba sangu sax la wax hmm. kon ko def day am bàkkaar bu ba noppi it nag ay lori wér-gu-yaram mën na caa jóge ndax deret jooju bari na yu ci nekk ay ay yu mën a yu mën a juri jàngoro kon euh, mën naa bànneexu ci moom li tàmbalee ci bëtéo bi jëm suuf wala jumbax bi jëm kaw waaye li tàmbalee ci jumbax ba ci bëtéo bi daal moom na ko moytu dégg nga bi ci des jigéen ju seetut dugg jàkk warta dugg jàkk dañuy wax ne doonte jàkk ji këram la ne wax fa dugg na ko moytu saa bu set moom du mun a bàyyi jàkka ji bu fekkoon bu ko fekkoon jàkka it na génn waaw bu fekkoon ci biir jàkka na génn kon du dugg jàkka du sax ci jàkka loolu moo taxit du mën a lentikaab ndax leen leexoo dañ caa sart nga taxoo jàkka ji sart ci nga woor te ñaar yëpp dañoo dàqonteeg mbërëg ak kon jigéen ju setu du du lentikaab bu nekkoon ci lentikaab bu yàgg mu dab ko na génn bu seetee ñëw àggale bu ko defee nag lu mat a bàyyi xel léegi nit dana takk soxna soo xam ne du jullit bari na tubaab yi ahlu kitab sañ nga leen takk donte le ci borom xooxe woon ne luñ sib sib gu tar la ndax daa mel ne yëlla ya taxoon ni maayee ko daanaka nekkatu njëkk da nga ko daan kii man caa jaare mu dugg ci diin ay mbokkam léegi nag safaan bi lay jur ñaare ku ci takk soxna xam nga ñoom buñ laabe it duñ duñ laab hmm. ndax ba balaa bokk ci sarti laab waaw lislaam mooy tax laab gi wér hmm. waaye kenn du sañ a joteeg soxna su su su mbërëg ba set te sangu hmm. moo waral ñooñu ku ci am soxna bu setee ci mbërëg dañ ko war a forcer mu sangu budul loolu boo jaxasoo am bàkkaar doon soxna foofu mën naa gën a leeral day lay topp day topp ñoom ñaar feeg sangu amul. feeg moom. day set naa rek moom sangu. mooy tax mu door a sañ a jote moom day set sangu julli gi day set sangu door a sañ a julli wa door a mën a julli mu wér door a mën a woor mu wér xanaa woor war mën naa set yéene te fekk sangookut waaw moom bu fasee moom te sangookut ndax wax mu set waaye bu dee julli gi day sangu door a julli fa ida tataharna fatuhunna fa ida tataharna jooju buñ sangoo lay fii buñ sangool léegi nag ahlu kitaab bi nga xam ne moom bu sangoo it du wax mbaax moo tax kenn du ko forcer ci sangu janaaba sangu janaaba ñàkk sangu janaaba du tee ni ki sañ jaxasoo soxna waaye ñàkk sangu ci mbërëg day tee nga mën a jaxasoo moom moo tax ki yor ahlu kitaab bu mbërëg mi jeexee nañ ko forcer mu sangu bu nu ngut sangu xëpp ko ndox door jaxasoo moom la ñuy jàngale waaye doo sañ ne moom du du kon bu setee rek mën na jaxasoo moom waaw mu sax waaye jàpp naa ne ñii yàlla nattoo ñu mel noonu waaw waaw war nañ koo bàyyi xel baax a baax ñu xam ne bu ko mënti na xam am tuggit moom na xam ne saa bu gisee baax wala meret ba set bala moo sañ jaxasoo mu day sangu donte sangu du ko laabal moom ndaw si waaye dana may góor gi mu sañ jaxasoo moom moom gi moo ci jariñ loolu daal lenn la ci yi nga xam ne xam nga su tuubee moom it euh, na fekk mu dafa luy tax sangoor xam nga jëmmi tuub kese léeg-léeg sax am ñu ko limaa la ci yi waral waaye nag bokk ci dëgg-dëgg fi la xaqiiqa mooy na fekk mu defoon cëg kéefër ga luy tax sangoor mas naa jaxasoo mas naa gént génn man yu génn ci moom boobaa bu duggee ci lislaam day sangu waaye ngir mër ngir ba jooju kon lii waral sangu moom janaaba la te mooy jaaxa man yi mu génn ci ak jaxasoo ak xaydoog nifaas dugg ci lislaam jëmmi dugg gi taxut ñu ne ko sang war na ko danañ ko sopp ngir mandarga luy tegtale ne jóge na ci dem ci lii la waaye bu fekkee ne dafoon na laata muy tuub luy waral sangu farata cangaay yooyu baaxutoon ndax ci kéefar la bu tuubee war naa sangu ngir set yooyu waaye fekkee ne masa day koo xam ne majeur agul wala bu daa majeur rek benn luy waral sangu génn gu ci moom mu dugg ci lislaam sangu waru ko nag mën nañ ko sopp nag waaye waru ko loolu daal suñu daal lenn la ci luñ mën a tënk ci mbir yoo xam ne mën nañ ko wax ci alxayd wa nifaas muy yoo xam ne it nag yàllaa ko nattoo jigéen ñi du ak wéeré di du ak manqué waaye sunu borom moo leen bind noonu euh, ci xikmaam euh, lay wane rek yàlla maam ak lu ci nekk moo xam fu mu ko defee moo tax jërul kenn di ko moytu jër kenn di ko bañ bi ci lu ñuy sutural la moom ñu ko baaxoo sax nit ñi xam nañ ko moom kenn du toog di xëy na ñi am yeneen i aada ñoo ñoo tàmm yooyu nga xam ne ñoom fu ñu toll mën nañoo wax ne la surtout man maa nangam fii eh, gis nga dañuy wax naa la eh, wilaya mooy mbërëg mbërëgum góor yàlla ñu mbërëg mel ci jigéen nga xam ne da koy làq ba mën nga leen dund yàgg doo ko xam bi ci des ñu bàyyi xel yu bari naa wax mbërëg du du du sobee soo xam day taqe day wàlle ba tax kum dal ñan ñi naan bu mu togg ak bu def nangam ak lu ne nga ne bu mu ko defal lii lislaam tere dal mooy yii du julli du woor du laalub kaamil du dugg jàkka du fa sax du lentikaaf deesu ko fase deesu bànnee ko ci moom ci diggante boobu yooyu daal mooy yi lislaam tere yi ci des nag sëñ na jàng na ko jàng di ko tari sëñ na ubbi téere bi ay bu laal téere waaye nag bu mu laal alxuraan moom bu fekkee du sëñ daara don doon daara ak nu mu ko laal gu ma doon yanu ko ci ab palaat ak roof ay bant gàll ko ci rek dóor ci ab saaga yëpp ci am kon bu mu jël alxuraan bu ko jotalee. loolu lu am solo la sëriñ bi ci ci sew-sew yi léeg gis ñoo xam ne dañuy taral ba sax eh, seen soxla bu gisee tolloo ci période ñu bëgg di di dem feneen ci doon eh, loolu da nga koy gis ñu naan. Euh, dañuy moytoo tëdd ak moom lool yu loolu tamit mat naa mat naa laa biree bokk yi waaw xam nga nag ñu bàyyi xel ne hmm. gis baax du xàññ ay hmm. yi nga war a bàyyi ne soxna seetul rek kon hmm. napp mu neex aye déedéet ak ayam moo ko moom bu wéeree wala seetut du tee moomu ayam ndax ay du jaxasoo kese wéttalante la nemmikonte la bokk waxtaan la kon loolu aqama yoo xam ne moom bu ko mayewut kenn amul sañ-sañ di ko xaj bi ci desin nag loolu ñu wax loolu sax nag daa war tax nga gën koo jege ndax xeetu wéradi la nit bu nekkee foofu dañ ko a dimbale di waxtaan moom di la bitim waaye nag nga xam ne ab julit ga am na diggante boo xam ne yaa yàlla mi la bind bind ko moo leen ne li bu ko bu ko def moo taxit dañuy wax ne góor gu sàggan ba bëgg a jaxasoo soxnaam ci xaala boobu soxna si na lànk ndax laa taa'ata li maxluuqin fi ma'siyatillah mais bu mu wax rek ne sama ko kër moo ko bëgg waaye man sax neexuma na lànk ba fa mën a yem bu ko forcé ba def loo ko ko nag borom ko bay gàddu bàkkaar waaye nag bu ko ci topp moom bu mu defaru it anam goo xam ne day mel da koy xemmelu boppam bu bu ko songee mu ne mu ne moom moo ko def déet nga xam ne foofu ñu ñaan ñëpp lañ tere jaxasoo ñu ñëpp lañ ko tere kon bu góor gi sàgganee ba nal ko defee na lànk moom. Hmm. foofu moom bakkaar amu ci ci bañ loolu la moom ndax topp yàlla dañoo xam ne mooy yàlla des ci topp nit waaw laa taa'ata li jaxasoo ci waxtu woowu mooy yàlla la kon bu mu bëgg lu neex borom këram ba tax yu bari dañuy wax naan sa borom kër moom lu mu bëgg rek dagan na ci yow loolu demewul noonu bàyyi xel ni na bekk mu bëgg lu yàlla terewul te lor nekku ci su boobaa moom topp ko ci warteef la. jërëjëf mbokk yi mbokk yi ñu seetaan. Euh, mbokk yi mbokk yi ñu euh, tey liñ doon gàggandikoo lu leer la di lu am solo tamit nag dëgg yàlla di. lu am am solo loo xam ne sëriñ bi indi nañu ko ay sew-sew yu am solo kon jullit bi yi ko suñu sant war na koy settantal di ko xam baax ba muy alxaydu wa nifaas bërëg ak ak meret ñaari mbir la yoo xam ne euh, jaam bi su taqoog moom muy soxna si am na yu ko ci lislaam sant ak ku góor ki bi sayal am na yu ko ci lislaam moytu lool yooyu yëpp sëñ bi indi ne ko ba la leer kon jàpp naa ne suñ suñ gàgganti ko tey moom bokk da ci ëpp solo te nekk ci société bi mhm. te doon loo xam ne nit ñaa koy dund waxtu jot kon sëriñ bi lay sant baax la gërëm danaa jox la kàddu nga xëy na yokk ci rek fàttali leen ne leen deret jooju nag sobe la saa bu jigéen ji seeta fépp fu taq ci ay na ko fóot loolu du ko mën a sol di julli kon ñu ngi ñaan yàlla defal ñu dégg ak topp yàlla barkeel liggéey bi it ndax lu am solo la ay jullit dañoo war dimbalante wala taawanu alal birri wa taqwa lii ci la bokk kon yàlla na ci yàlla defal tawfeex ñu ngi siyaare ñëpp di leen baalu àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf xam naa comme ni nga ko waxee sax dara jooju ni ko waxee sax dara jooju moom nëbbu ko sax moo gën ndax euh, am nañu am na ci ñoo xam ne sax buñ naan waxtaan mu ne man daal damay fexe ba sax su ma ko gisee dama koy nëbbu ndax sobe na comme ni ko sëriñ bi waxee kon loolu mat nay fagaru bu baax a baax a baax ngir euh, sagaru sobe na te sobe ëpp nay euh, taqawaak moom wala nga di ko jege. kon sëriñ bi ñu lay sant di la gërëm bu baax a baax di la ñaanal sa borom gën a yokk sa xam-xam te may la gudd xam ak wér mbokk yi ñu doon topp tamit ci seen seen MKTV euh, li mu doonoon tey seen émission bu am solo boobu nga xam ne moom la ñuy wax gàggantiku ñu koy def ci weer wu nekk ñaari yoon tey jii ñëwoon fii ci Daaru Salaam Ndaam ci kër sëriñ Mbacke Abdourahmane ngir àndoon ko ak moom kon ñu ngi sant bu baax ñëpp xarit bu soo ak sëriñ Fallou mi nga xam ci beneen